salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Sans-Limites TV kontaan ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun euh, tey ñu am euh, mbégte kontaan bu baax a baax en exclusivité ki nga xamante ni moom mooy Griff Griff salaamaaleykum. Griff Sougou euh, Griff Sougou alors Griff ñu ngi jàkkaarloo en direct fii ci Sans-Limites en fii ci Sans-Limites TV comme maa ngi déggaat sama sama bopp voilà Griff maa ngi lay nuyu. waaw Griff Sougou maa ngi lay nuyu. <coughs> waaw Cheikh bi maa ngi lay mm-hmm. bu baax. di mm-hmm. nuyu waa waa sans limite baax ku nekk si tool si sant di nuyu ñëpp ñu la jege foofu di leen nuyu yàlla na yàlla doon sutura di nuyu sama xarit ñëpp di nuyu mbokk Gambien yi di nuyu. Mm-hmm. képp ku yeewoo waaw maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. d' accord com boo mënee may tuuti retour alors Griff ma bàyyi la nga nuyoo ak waa sans limite wala nuyoo nga ba pare ak internautes yi. waaye maa ngi nuyu sénégalais yi di nuyu sama bokk gambien di nuyu sama xarit yëpp ba ma ko mënee may ma dégg ko mhm. di nuyu sama xarit yëpp di nuyu euh, képp ku yeewoo Amérique ak képp ku yeewoo or ku mel na xarim am xam di nuyu ñoom Adi Diagne di nuyu sama yaay mère Agnang ajaratu mère Agnang bi jógee Màkka di nuyu sama yaay ak sama papa di nuyu sama rakk yëpp di nuyu euh, di nuyu nga xam ne vraiment Amérique la nekk fi def lu baax di grand tolé di nuyu waa association sénégalais waa waa association d'accord Euh, ginnaaw bo boo nuyoo alors euh, gis nga caw cawul showbiz fan yi nag euh, daanaka showbiz bi bu dee dafa nekkoon di nelaw tamit mën naa wax ni jógaat na ci ki nga xamante ni moom mooy sax ak jafe-jafe yi mu am laa ko mën a sax tuddee en sax sorte mook papam alors Griff déjà balaa ñuy ñëw ci sa appel keroog fi nga xamante ni mooy confrontation fële ca bisu ak réaction Pawlish Mbaye bi nga wootee ba pare déjà coow loolu en tant que xaritam naka nga ko gisee waaw ñu ngi tolloon ne Pawlish euh, saytaane la te naafeq la te Pawlish daa nekkul gor mhm. waaye su nekkoon gor du toog sax di wax si man ndax man man billahi wallahi jombal naa di fenal koo xam ne man ah ba may tedd moom teddul ba may liggéey moom liggéeyul ba may liggéey di yàlla di ma dimbali mu ngi toog si taatu mm. gele di màkkuroo ay nit wala di uskuroo ay nit ndax ma koy fekk jiil mbay ñu héberge ko kooku génne ko maa ko jëli seen kër maa boobu ba dajeeg moom ba yóbbu si place su makkan fekk waal di watu foofu noonu te pare moom fekk dama jóge Amérique te loolu yàgg na mais nit soo gërëmul euh, doomu aadama doo gërëm yàlla police Sénégal yi ñoom ñoo xam kan mooy police mais Pawlish c'est un menteur la te koo xam ne loolu la waaye defal si àdduna soo génnee nga xaas ko barki Demba Ndiaye. loolu. Mm-hmm. ay nit a ngi toog duñu ma bàyyi ma fenn Dimitri Moussa Ndiaye. Mm-hmm. benn waaye ko may cinq cent mille. mu dem defar photo waa benn base. ñëw di ko wax naan gerte kaalin téere ma ma sinab leen. ah mm-hmm. Sénégal boo ñu mënee laal tuuti sombre li nga xam na sax allez-y allez-y. Sénégal soo fi nekkee da toog soo paree damay xotti base bi. loolu am na ña fa toogoon ñoom bisu Dimitri Moussa Ndiaye ñu ngi taxaw te man rus naa fi may taxawee naan maa ngi fenal Pawlish Mbaye naa fekk la saytaate doomi xaj koy may xaalis ñoom ñoo torox ndax doomi xaj yooyu du ko may xaalis Sénégal Dakar Buzz ñu ngi laaj social ànd taxaw bëri wër ni ñu ngi laaj social nañ jël ñooñu di dimbali yenn nit ñooñu Pawlish Mbaye lan la tekk mi li muy def lu nit mën na tax tey nit mën na see jàng wala mën na see jëriñ tey ay fenam tey li ko may sens si plateau bi billaahi wallaahi biisu ngoone di nit ku baax mooma njëkk na ma grif ne ma demal ah, ah, may ko moom ye biisu mu ngoone bi ne ma message ne ma demal grif ah, may ko may a mulaar man quoi xam nga kon kooku biisu bëgg na jàmm mais Pawlish su doon nit dëgg-dëgg sax du nekk di totonto di wax ay wax ndax moom baadoo la baadoo la ak ñàkk respecté a doomu aadama yi ñàkk fayda yi jéem a sibul Pawlish ah koo xam ne yow tey soo dee gor nekk koo jaam munoo fen na benn toog nga kër Pape Tall mhm. mu ngi dégg mu nii kër nga añee chaque jour toog nga foofu di gërëm ba tàyyi toog nga foofu di ma ba tàyyi barki démb Ndiaye njëtu Ndiogu Mbaye fa nga taxaw si kanam moom damaa ne ko griffe kii moo présenté Wally Seck mhm. tey nga toog de fen Sénégal yi ñàkk fayda yi lay déglu ak ñi lay topp ñoom ñoo la xamul man griffe si fen si fen laa la xamee ak si macro la xamee papa Pawlish macro ay nit ba nii may wax ak yow Pawlish ay macro jabaru jàmbur yëpp lay boole di macro man si macro laa ko xamee girif kaa la xale bi girif kaa kaa ma dem jëmu xale bi kaa xale bi man suñu laa ko xamee man du ma fen te loolu ay ay deux mille deux mille dix deux mille neuf deux mille man fa laa ko xamee. ah bon te moom su yeewoo dafa war a sant Wally Seck su dulee ñaari rakka dafa war a sant Wally Seck boole ma santaale ma. ndax ba muy présenté papa Wally Seck du ma bàyyi ma fenn ba mu koy présenté papaam dana ko kii mooy papaam. waaw mais mais mais moom moom sa xarit la moo tax nga bëgg a wax loolu li nga wax ni yëpp lan moo tax nga koy wax parce que moom la moment parce que dafa génn ma di ko conseillé mu taxaw naan ay naafeq la ay nangam nangam parce que Sénégal dañ lay jaay ba nga ne tëpp daanu mu bëgg ñu koy maral taatam comme yéen ñi génn naa ko Pawlish dañ koo tooñee nangam nangam fu man Pawlish man inter jàpp ni dafa jàpp ni yow li ko doon wax si plateau bi avant coow li di papaam di génn yow xelaloo ko woon à ce que mu dem jëli papaam ak yooyu. waaye du ma ko xelal parce que nit ki Pawlish su la rombee si mbedd bi sax war na ñëw jox la benn gët bi wala benn cër bi du la ko jox dan jéego du ma bàyyi lépp fi la fekk. dan jéego sunu grand boobu lépp fi la ko fekk. su taxay di dafa am ñoo xam ne mën nañoo seede. Mhm. ba ma koy jëli jëli mbay. si ay difficulté yu metti su paree na saytaane yi taxaw wax wala naa fekk yi ndax la mu wax si plateau laa ko tontu te Pawlish du dara laa ko bàyyi li ma a gën a bari ñu koy may xaalis ñëpp ku ko may xaalis su génnee xas la waxoon lu ñaaw waxoon lu bon léegi damay toog sax ma ne Sénégal dañoo ñàkk fayda fi ñu war a dugal seen xaalis si dimbal ay nit ñu sonn ay pauvre ay nit ñu lekk naanuñu xoolal waa waa Dakar Buzz ay ndimbal ñu soxla si ay nit pour jàppal ay ñu feebar maanaam ànd taxaw ñu di ñuy jàppale ah ñu jël ay Pawlish di may ay un million cinq cent mille ban intérêt la Pawlish amal ak ku dimbalul sa baay dimbalul kenn kooku moo jox sama alal moom li mu bëgg génn suñu yëre ko ma ay xaalis jamais de la vie moom da nga doon fekk si ay situation daan ko jàppale su nekkee baadoo la ak imbécile taxaw si télé bi d' accord d' accord dafa am tuuti décalage nag euh, ci par rapport ak euh, li ngay wax dafa xaw a avancé tuuti par rapport ak man li ma nekk di wax mais li nga xamante ni bëgg naa la ko laaj euh, boo daaneelee ci li ngay wax voilà bu fekkee daaneel nga aussi ma ma laaj la mooy yow digganteem ak papaam bi mu digganteem ak papaam bi muy demee di day takk soxna si est ce que yow hmm. conseillé nga ko ci digganteem ak papaam bu dee conseil nga ko lan nga ko conseillé woon Pawlish du ma ko woo Pawlish du ma ko yónnee message Pawlish numérom barki dem ba ko bëggee yor fair play laa ko wala ko numérom te ba ma nekkee Sénégal damay gisante moom si mbedd mi nii rek su lay gis sax dalay mel ni lay bëgg a xeeb wala ngay làqatu te yow meloo fi lu tax yow amoo daraja boobu tey tey gàcce sax war na mën a taxaw yow lenn nga war a mooy baalu ñu ak sa bàb maa koy baal ak waaye du koy tontonteel du koy waxal ndax Cheikh Mbacke mi ngi na sa xarit la tey man Griff xaw ma Cheikh Mbacke xamaa nu ma ko waaye fu ma gis ñëw jox ma cër fekk ma nuyu ma grand nga ça soit bien mais police mi nga amoon dara sax. Mhm. yow yaa ko doon jàppale mi wër naan jox la fu ma la. ah lu bari ma xam ko xam nga kon moom su ma ko yëndee si plateau war na maa ubbi téléphone sax woo ma grand ah waroo waxee nii wala nii nee naa Pawlish maa ko dàqaw. est-ce que mais nee na présenté woo ko waali est-ce que loolu da koy lan ci wax nee yow présenté woo ko xam ne tey ñu nga jege mu ngi leen di fréquenté yéen artiste lu ngeen waxal lépp ma teg ko si ko table bi mën naa ko ko waali est loolu da koy euh, lan ci wax nee na yow. présenté woo ko waali neex na fii moom baax na. xoolal billaahi wallaahi taalaahi ak yi mu sama yàlla naa torox. man musuma fenal kenn musuma waxal nit lu ñaaw musuma waxal nit lu bon ak yàlla naa suur sama yàlla naa torox ba ama dan daayi maintenant gis nga jour bi may jour boobu jóge naa Amérique quinze jours jóge naa Amérique quinze jours barke Cheikhul Khadim jóge naa Amérique quinze jours Pawlish woo ma ne ma Griff soo ma ñëwul fekk fii dinaa fi am ay situation jour boobu maire bi mu dëkkal jiiri mbay kooku da koo génne hmm. jël kër gi néeg boobu tuur ci ay ndox muy bëgg a dee ma ñëw jël si ko boobu maa ngi yor benn scooter scooper bu gris ñu jaar si makkan fekk waal di woto foofu ba waali woto ma ne ko waali booy booy ma saf xorom nii parce que ko waali daa bëgg ay nit ñu neex yooyu kaf nii ma tooñ ma ne booy ma saf xorom ngi nii ama ah ma ko ah, Pape Ndiob man mooy sam mooy kii tëggal bi fi yaan laan may mooy sam papa barke rasulaay waali kontaan lan mbay moo ma yar ñam nga ñu garaamu nga wax nii naa naa wax wax wax noonu la xamante Wally Seck te billahi kii wata ngi foofu noonu jili mbay soriwul makkan di nit ku baax fekkee na lépp mu ngi foofu jour boobu man du ma taxaw di fenal loolu jomal naa ko sama moom moo yàq deru ñooñu yàq deru artiste yi wala nga may keroog ku ko may 500000. Euh, mais bon fi fi ñu daanalee waxtaan euh, defar benn lu mel ne sax ma suñu teeku woo kër yooyu ñoom ñu ne tee leen ma fay leen ma ma def benn vidéo similé waaye ah su ma paree ma koy xotti comme ne ñoom seen a jëppi am na euh, ñu may xaalis daanaka yàggul dara mu daaneel hmm. li nga xamante ne d'accord ci digganteem ak Wally Seck d'accord mais bon fi ñu fi ñu fi ñu daanalee waxtaan bi xam naa ñaar dinañ defar beneen beneen appel pour mu demee nguur li mu am ci kaw seen bi dafa li nga xamante ni mooy wàllu showbiz mm. du ñàkk seetaan mm. nga ki nga xamante ni moom mooy délégué Amar mm. jamono ji daanaka yàggul dara mu daaneel li nga xamante ni wax na ko ci digganteem ak Wally Seck ay nit ñoo dox si digganteem ak Wally Seck ba ci tudd Cheikh Mbacké ba ci wax wàllu mystique ak euh, mm-hmm. Cheikh Mbacké bu mu demee mbuur li mu am ci kaw seen bi dafa bari ak yooyu loolu nan nga ko gisee mm-hmm. ah, délégué Amar. délégué Amar Darmanko la. délégué Amar naan Darmanko la sama mbokk la. tey délégué Amar heure bii. dafa war a toog sax ñu koy jox ay addiye parce que fi mu bokku la. parce que dara Darmanko du xeet boo xam ne xeet bu ndaw la. ndax soo ko fe soo demee Jurbel. comme dëkk si Jurbel ñëpp dañ leen jox cër ndax am na keneen ku fa tudd Cheikh Amar moom la ñuy wax Cheikh Gabo. chaque année mën naa yóbbu fanweeri nit màkk. xam nga digganteeg moom ak waa Ali ay mag ak ay rakk lañ ndax tey waali jaral na ko xeex waali jaral na ko reyante waali na ko mu sonn si mbiram lépp kon lépp lu si mënti am lépp lu si mënti am si seen diggante ah moom ak waali ak Seex Mbàkke yëpp nañ ko rafetal nekkul loo xam ne dinañ ko génnee si internet bi parce que ñoom ñoom ñoom ñoom la xam nga nit soo amee lu la naqari ak lu la metti demal nga fa euh, ka nga war a toogal wax nga ña ña nga war a waxal nga wax leen ko showbiz dafa doy waar gis nga showbiz mhm. sama genre yi ak ñeneen ak ñeneen rek ñoo ko mën a maîtriser mais showbiz soo ko mënul maîtriser rek mu sànq la soo mhm. showbiz soo ko mënul maîtriser rek mu la ay noonu te showbiz yombul man ku laaj Papa Ndiaye géwël nga laaj ñoom Mass Boga nga laaj yenn nit ñi den la Griff dafa yàgg si showbiz mhm. Griff jamonoy rafet ba avant nangu na di sosu ba léegi maa ngi si showbiz di xam li may wax di xam li may def di xam li may nangam nangam nangu loo su ma wax da ko doon may xaalis jox ko mu mhm. dafa am loo xam ne nit ñaa ngi gis showbiz muy dem mais nit ñi mhm. xamuñu bari lu lu wundu showbiz mhm. yaa nga ne showbiz pour forcer la du forcer de du forcer de man waali waali suma nit la waali maa ngi ko xam quatre vingt dix neuf xam du tey waaw ba ma koy xam. tey waali mu dund lu métti. ak seexul xaddim dafa xam dafa xam showbiz d'accord mais délégué Amar yem yemul ci waali ak ni euh, am na lu ko métteeg hmm. yooyu euh, mais dafa wax ay ay wax yu doy waar ci Matar Soubatel nee na ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Naajo Matar Soubatel moo ko liggéey mais wax boobu euh, jom jooju ba tax tey yàlla ko fi mu wax boobu ëppul nga hmm. yaakaar te Wally dafa xam showbiz Wally ku xam showbiz dafa xam dafa xam showbiz d' accord mais généralement yemul yemul yemul ci Wally ak Cheikh Mbacké rek ginnaaw bu mu waxee ni euh, am na lu ko metteeg euh, mais dafa wax ay ay wax yu doy waar ci Matar Subatel nee na ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Naajo Matar teel moo ko liggéey mais wax boobu euh, du ma wax sax ay waxu plainte yooyu mais wax boobu yow noo ko déggee wax boobu ëppul nga yaakaar mais délégué Amar mm-hmm. yàlla xam na ne mm-hmm. taxaw nañ man ak moom buntu ñu waxtaan ma ne ko délégué. mu a ma ah billaahi wallaahi ma a ko ma ne ko délégué ma ne ko yow dara baaxul nga. ma ne ko yow dara jombalu si àdduna tey heure bi dafa la wala fekk nga yor say taalibe ñëw di la ziar si. xam nga am na am na yoo xam ne ah waratoo ko sax wax yow a sax di wax yow da a bàyyi nga war a yow da war a wut ñu lay waxal mais du yow yaay toog di wax parce que am loo xam ne. man délégué sama mbokk la sama deret la mais. Mhm. billaay bëgguma sax wax yu ñaaw yooyu mu koy génn si gémmiñam mhm. Mhm. parce que loolu loolu bu ma faral kenn loolu tooñ la te wax dëgg yàlla Matar suba teel tooñul kenn tooñul kenn man ma kenn Matar xaw ma fu mu dëkk gis naa ne tooñul kenn te nit nag darman ko moomul tooñ ndax darman ko loo def loo def sa àdduna te jiguloo day feeñ si yow loolu sa àdduna rek te jigu la day feeñ si yow loolu suñuy maam ñoo ko ñaanoon xam nga mm-hmm. te am na wax yoo xam ne si gémmanu delloo ga amal ndax tey. man bu ma neex ndax euh, yow da bokk ñu koy ñaanal ci mataar suba tey mën na si ren parce que lii ay ay accusation ñu ko si plainte bu yóbbu ko ci yoon tamit euh, donte ñaanal luñ ko xoo yow ban taxawaay nga ci am waaye mhm. lépp lu muy génn rek parce que caméra dafa garaaw mhm. caméra lépp loo suy wax te maîtriser sa bopp di nga wax loo xam ne waroo koo wax. mais mais mais bu ko Matar yóbbee ci yoon. Euh, ndax yaw da ngay bokk ci ñu koy ñaanal njekk wala déet parce que ñi ngi jàpp ni du yàgg tuuti Matar suba tey mën na ko suppléante parce que diw dafa liggéey nit soo biis est-ce que jar na ko buñ ko suppléante ba yóbbu ko ci yoon tamit euh, donte ñaanal luñ ko xaw yow ban taxawaay nga ci am. waaw mais loolu du yoon. Mhm. man tey. Euh, su ma su ma su ma yoroon numéro Matar léegi maa koy woo ñaari at mu en tant que en tant que Darmanko en tant que frère parce que loolu. erreur la erreur bu garaaw la parce que nit doo ko accuser loo xam ne defoo ko parce que nit délégué musuma dégg Matar suba teel wax si délégué. musuma dégg Wally Seck bi moom lay jàppale mu wax si euh, Matar suba teel looloo tax ma ne la ak ministre ak président lépp benn la soo ko mënul maîtriser rek sa ak avocat ak ak procureur ak député ñëpp mbiru soob bi soo ko déggee mooy soo ko maîtriser wul yow yaay nangu sarax bi yow lañuy gasal kàmbu ba kàmb bi xool ñu daal di la buux di la buux ba nga def kenn suux si mooy fekk na yow mënoo soobiis yow da nga bëgg wax ni sawaay dafa dafa dafa miinul showbiz moo tax muy def yenn sorties yi wala waaw miinul ko dama wax naa ko loo xam ne dama ko wax mm-hmm. showbiz soo ko miinee dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. dangeen ngay maîtriser sa mind maîtriser sa xol xam fi ngay waxee. ba doo ba doo doo def erreur boo xam ne ëllëg nit ñi dañuy toog naan ah li mu def waru koon def ah, lenn loo xam ne si soo bis artiste yi di xasante seen biir wala gën di yàqante wala di waxante lu euh, moom loolu dafa mel ne jàngu si doo dégg mu ne génn suñu pare ñoo toog naan avocat yi suñu pare ñoo bokk benn daal lañ am restaurant ah mécaniciens yi ñooy añandoo ministres yi ñooy añandoo kon soo bis su nit ñi di añandoo di reerandoo nga gis ñuy àndaat ah yow wax suñu rafet mhm. te délégué wax dëgg yàlla côté boobu moom da see juum carrément. Mhm. da see carrément. waaw ah, nga baal ma sax mais mook Idaly yàggul dara bi leen fi Matar Subatel planté ba ñoom lu mu gàtt gàtt def nañ une fi nga xamante ni mooy kaso. est-ce que euh, moom loolu dafa mel ne jàngu si en fait. est-ce que mhm. jàng na ci loolu kaso bi mu demoon ndax Matar Subatel moo ko porté woon plainte. Mhm. waaw xam ëllëg li may wax sànq rek nee naa showbiz da ngay dem ba ëllëg nit ñaa lay jéppi. parce que sa coow su bëree si showbiz rek. su ëllëgee da ngay yàqal sa bopp mm-hmm. maanaam doo jar si nit ñi dara mm-hmm. da ngay tuut si nit ñi sa mm-hmm. nit ki tamit sa dignité ak sa classe yaa koy incarné sa bopp fi nga war a génnee wax nga wax fi nga warul doo fa wax xam nga parce que nit ki réerawuñ lépp lu ñu xam rek nañ xam si wax ju rafet ak jëf ju rafet ak euh, toogaay toogaay bu rafet xam nga tey man Griff su ma waree génn wax damay génn wax keroog ba caat sekk dalee si kaw Pape Diouf dama génn wax te man mhm. du amul xaaj amul seen parce que soo plus kenn yoruma mhm. kenn yoruma mhm. kenn yoruma d'accord xam naa fi ñuy daanee waxtaan mooy malaise bi nga xam ne naa bi daan na ko jege artiste bi ñi jege mbër bi euh, ñoom rek ñoo yàq ngi ñoo indi ay situation ñoo indi ay problème am mais ñoom seen i biir ñu soo ko xoolee mm-hmm. keroog Gris Bordeaux keroog mm-hmm. ñoom Gris Bordeaux ñoom Eumeu Sène ñoom ñëpp nga gisee ñu ànd doo nekk benn war naa yee war naa yee supporter bi war naa yee yëpp tey nga gis euh, euh, artiste keroog Sidi Diop woo Waly ñu waxtaan mm-hmm. Waly Seck keroog na Pape Diouf concert loolu ñoo war na lii nit ñi mm-hmm. d'accord léegi xam naa fi ñu jaanale waxtaan bi mooy malaise bi nga xamante ni Ibra Naly daan na koy am démb ci soirée bi mu doon zee euh, jamono ji nag mi ngi principal ci xibaar yi ci mujj yi ñu ci am ñenn ñi sax ñi ngi soulever ay mbiru mystique ak yooyu yow ci malaise boobu en tant que ku maîtriser showbiz lan nga ciy wax non jàpp ma ne jàpp ne ay mystique la man mosuma jàpp ne mystique la. Mhm. nit ndongolo ndongolo euh, wayu yëngu leen ba si yàgg. Euh, daanu bëgg a daanu foofu. Mhm. ah parce que dafa feebaroon te ndongolo ndongolo doona toog si asgay asgay mu laama doon daaw naa damaa feebar te yàgg na yàgg na. Mhm. trois ans si kanam wala quatre ans si kanam avant affaire bi ko daane à moo dem Italie. xam nga. gis nit xam lu ñu war a bàyyi ñàkk gëmadi yàlla lu ñu wax ñu ne mystique la mhm. xanaa xamoo ne nit si doomu aadama kaa ma jox la benn conseil bu yam mhm. Mhm. xanaa xamoo nit ki waxuma ibura naajo mën nga am feebar nga am feebaru xol daanu si seel nit ki mën nga am infection boo xam ne sa biir lay jàpp infection bi su la jàppee barki Sëriñ Tuubaa da ngay mu mel ne sa biir bi dañ koy lëmas ay ay buum. Mm-hmm. day am su lu ne. Mm-hmm. tey mën nga am tànnkatu ceeb yooyu noonu. nekk sa mm-hmm. biir bi mooy yooyu ngay lekk mooy tànn ceeb bi nga xam ne poos bu su ne ba fees day jàpp sa biir bi di wañaan ngay bëgg a dee kon nañ bàyyi. lu ñëw rek ñu ne mystique mystique ñàkk gëm di yàlla. tey nit nit dina tooñ koo xam ne su ëllëgee moom moo koy dugal sax. Sénégal maanaam bàyyiwuñu maanaam da ngay gis ku dee. Mhm. gars yi jullee si buntu armeer yi dugg ko génn di ko jëw génn di jëw ki dee di ko jëw. Mhm. Ah, bala ñoo génn armeer yi lañ koy commencé jëw ba keroog ñu yegg kër ga. Mhm. suñu yeggee kër ga suñu toogee la ñuy def farata mais wayaan wayaan la ñuy def wayaan jox ma paas dama war a ñibbi jox ma paas ah sa maa ngi dem ba defi. waaw loolu moom am na lu ma ci dund am na lu ma ci gis <laughs> yàggul dara ci benn célébrité boo xamante ni waajuram moo génn àddina ma gis am ñu toog dëggul yàlla nag ngeen baal ma noonu la demee noonu laa ko gisee ay ñoo xamante ni waa ay soxna yu taxaw di laaj paas pour ñibbi mu nekk loo xamante ni voilà mais en tout cas Grif euh, xam naa nag bu ñu ko tàmmee nañ gën a waxtaan ci yeneen domaine euh, comme instant bi appel vidéo bi ñun ak yow dafa nekkoon ci euh, phase de test ñu koy réglé di xoolaale yenn détails yi niñ ko gën a à ce que voilà de temps en temps de temps ngay ñibbi saa yu ko actualité bi laajee ñu daal lay woo lan mooy lan ngay daanele ñu daanele ko waxtaan bi. waaw maa ngi li ngeen def nii naaj na te affaire professionnel yéen da ngeen di seetaan partout dans le partout dans le ndax télé yi yaakaar naa ne euh, heure boo jàppee sax seen logo sans limite dina génn tamit ngeen di def ay am solo te gis naa ne tamit euh, li ngeen di def aarul leen ko ndax euh, li ngeen def lépp dëggoo dafa naturel parce que nit dafa gis ngeen invité nit sax mais da ngeen koy wax raaj da ngeen koy wax dëgg. Mhm. waaye nag li ma leen di conseil mooy. Mhm. foo leen nekk bu leen ragal bu tiit ki la gën a bëgg moo la gën a bëgg suuf moo la gën a suuf chaque jour. ki mm-hmm. a gën a bëgg gàllaat mm-hmm. moo lay gën a suux mm-hmm. foo nekk gëmal yàlla te ànd sunu borom te am sa ñaanu waajur te del saraxe waxuma la ngay may de heure boo mënee saraxe del saraxe te nag heure boo gisee lu la jaaxal yow miy liggéey si bërëbukaay yi heure boo gisee bu la jaaxal bul dem si sëriñ je sawal sa saw bu mu tooy nga sangoo soo paree nga lañul ko kenn du si yow abadan daay mi naa Mhm. loolu laa leen dégg te wax naa ko si plateau di jee if te ba may toog di jee if man ah, ma benn sëriñ ñoo toog ba may wax loolu weddi wu ko dafa répété li kii wax mooy dëgg indi leen ko si li waral loolu mhm. maanaam da saw ah. daal da ngay tuur ndox daal ci pot rek nga sangoo ko nga sangoo ko soo ah. paree trois mille neeram nit billaahi wallaahi du la mënal dara si àdduna lan moo sa loxo suy ñu alal saw si dugal si saw ndax loolu la ma tax su gàllaaj tamit fenn ñu ne eh saw si dañu toj ko saw si saw si sugal si gàllaaj mhm. ko mosoo mhm. koo dégg loolu mhm. waaw kon nag na nit ñi gëm yàlla te xam ne li la yàlla mayul sëriñ mënu la koo may man musuma takk ay téere waaye fépp fu ma dem lu ma nar a jaaxal sëriñ fekk Mm-hmm. bul sàgganee saraxe mm-hmm. bul sàgganee génne asaka bul sàgganee jàppale say waajur soo ko defee fi nga bëgg a yegg ngeen fa yegg te yàlla na leen yàlla taxaw ay jeune ngeen mm-hmm. ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat ngeen xam nga yàlla na leen yàlla taxaw ba ngeen mën a ñëw Amérique di def ay interview te yomb na te yoon bi yaatu na das si kenn moomu ko waaw ah, la ñaanal gëm-gëm la en tout kontaan nañ grand euh, euh, griffe bëgg nañ bu baax a baax xam naa comme ni ma ko waxee rek le temps que ngay nekk foofu bay ñibbisi bu fekkee da nga ñibbisi diggante bi tamit xam naa du ñàkk boo ñëwee Sénégal di nga ñëw la c'est tout près par euh, nga xamante ni yaa ngi fay faral di fréquenter am fi ay xarit diggante bi yëpp en tout cas boo bu la ko temps waxtaan le temps que ñëw mais en tout cas ñun kontaan nañ ci sa temps bi nga xamante ni daal di nañu koy jël nga jox ñu ko en tout cas merci beaucoup quand ci loolu mu nekkoon com laay ci réalisation bi com nag chapeau quand même parce que euh, comme ni ñuy wax nii rek li xawta xawta yomb quand même parce que ci yenn euh, tele yu mag yeeg yooyu nga koy faral di gis ñun nañu ko bëgg teg fii ci Sans Limites TV képp ku nekk bitim réew nga bëgg a wax sa soxla fii ñu jël la ni appel vidéo loo xamante ni macha allah en tout cas ci phase test bi la ñu nekk mais ni ñuy ñaan euh, d'ici peu mu gën a gën a ñokk en tout cas comme Serigne Aïcha kontaan naa bu baax a baax mu nekkoon Ouzin ci présentation bi jaajëf jërëjëf